Babacar dinañu ñëw si Jibril Umar Ba bu Sénégal Info si TV Jibril Umar ñu ngi neel di nuyu di la ziar bu baax noo gise tirage CAN 2024 bu tey bi. waaw euh, ñu ngi leen di fay bu baax a baax Ousseyni ak euh, waa groupe King FM yëpp di leen nuyu bu baax di leen ziare donc euh, di leen wax ni rek am li nga xamante si mooy programme bi nga xamante si moo di. kontante euh, ak mbégte bu baax a baax a baax ci bi ñu tirage bi nga xamante si tey ji xew na euh, si euh, Côte d'Ivoire si ñeel Coupe d'Afrique des Nations deux mille vingt quatre trente quatrième édition boobule gannaaw ñu ko def tey. waaw noo gisee poule C bi entre les Sénégalais et Gambie. voilà Ousseyni <laughs> noonu la donc tirage bi sur le poule C donc gis nañu le Sénégal et les Guinée Conakry et Cameroun voilà donc euh, pour boobu euh, lan mooy si suma jàngat rek mooy gars euh, xam ngeen ni Sénégal ak ak Guinée Conakry c' est nga xamante ne en terre bi mooy diggante ñoom ñett donc avec Cameroun encore entre le Sénégal et Cameroun c' bi nga xamante si bu am am solo la donc loolu moo tax nag ma ne leen poule de la mort boobu muy poule c' voilà si biir tirage bi poule bu Sénégal Euh, li nga xamante mooy pour bu gën taxaw tey jii parce que notre frère Gambien yi alors que ñoom tamit lu ñu gën a bañ ci seen adoon rek muy am defet euh, ci kaw euh, seen am defet ñi nga xamante ni mooy ci kaw Sénégal donc Sénégal tamit ñoom waratuñu nangu am defet ci kaw Gambie donc loolu. bu dee Guinée tamit ñoom tamit lu ñu gën bañ mooy Sénégal dóor leen wala ñi nga xamante ñoo di Sénégal tamit euh, lu ñu gën bañ rek mooy Guinée euh, dóor ñu voilà donc euh, mu nekk poule bi nga xamante ne si day difficile lool bu baax a baax rawatina ñi nga xamante ñooy suñu frère Gambien yi ñoom ak Guinée xam nga ñoom ñoo éliminé woon Guinée en deux mille vingt et un donc Guinée tamit fay seen boor moo leen yor instant voilà donc Guinée tamit ñoom bokkuñu li nga xamante Gambie door leen donc mu nekk poule bi nga xamante dafa métti Cameroun tamit c' est une grande équipe bi nga xamante ni si tey jii ñoom bëgguñu ñi nga ñi nga xamante ni Sénégal wala Gambie wala Guinée am victoire si seen kaw donc loolu moo tax poule bi nga difisi ni bu gën a difficile muy diggante ñaari poule yi. poule de la mort may ñaar rek muy ñu dem si Coupe d' Afrique bi si jàmm ak salaam donc ñu ñëwaat si ak eh, donc bi sera un classico entre le Sénégal et le Gambie. Euh, parce que sama mbokk ni toujours euh, ñu ngi waxtaan si <laughs> biir ci euh, football sénégalais gambien non mais football non la donc lu alors que pour le lu c'est dafa merci beaucoup Djibril Oumar merci. voilà merci beaucoup maître Ousseyni di la nuyu la merci à merci Sénégal Info di Sénégal Info merci voilà merci mon école Ibn